dal leen ak jàmm ci seen bi di jox xibaar yu wér te wóor leen ngir dara bañ leen raw euh, GPS bu département Mbacké bi yëpp ak euh, GPS bu commune Mbacké ak commune Touba ak GPS yeneen commune yëpp euh, comme nu ko waxee rek démb am na ay incident yoo xam ne am na ci biir commune Mbacké muy ay incident yoo xam ne mën naa ne coalition bu ñuy wax Diomaye président muy suñu coalition nga xam ne depuis le début ñu ngi doon defay ay campagne dugg ci quartier yi nga xam ne ñu ngi nekk Mbàkke yëpp ak ci département bi commune rurale yëpp def ko muy campagne mu ci ayib léegi ñu ne woon démb danañ ko collecter ci nu mu gën a rafetee ñu jëloon itinéraire boo xam ne euh, dañoo invité woon kene ne bëgguñoo dajeek benn cortège pour ay coow di am moo taxoon ñu jël itinéraire bi nga xam ne jël nañ ko te it balaa ñoo départ dañoo wax ne euh, jeunesse yi nañu amuk dal te xam ne woote wuñu violence waaye jàmm la ñuy woote comme niñ ko doon defee depuis le debi ñu def ko tëj ko ci nu mu gën a rafetee discours boobu dañ ko tenir ci bu ñuy bu ñu bëgg a départ ba jeunesse bi yëpp ñu conscient ci loolu bu jël suñu itinéraire daal di départ léegi nag ci loolu bu ñu Euh, ñu jël suñu itinéraire topp ko top ko ba dem ba ci gaarasu tiib ba dem ba ci gaarasu tiib ñu continuer jël suñu itinéraire daal di dugg si ci biir Mbàkke Xewar bu ñu dugg see ci biir Mbàkke Xewar bu ñu dugg see ci biir Mbàkke euh, ba def ay ay ay quarante mètres ci la ñaari cortège daal di daje muy cortège bi nga xam ne moom la ministre maire Gallo Ba jiit dirigé woon ak cortège bi nga xamante ne si moom la coalition Diomaye président ci département bi divisé woon ñaari cortège yi nag bu ñu dajee euh, mu am ay ay buuxante yu ci am te loolu mën naa ne ci kanamu force de l'ordre yi la kanamu force de l'ordre yi la nga xam ne ñoom euh, bu fekkonte ne taxawaay bi ci war a am amoon nañ ko jamono boobu rek xëy na euh, mbir yi mënoon naa bañ yegg si foofu mais xëy na ak taxawaay buñ ci am taxaw seetaan ba mbir yi mujj ëpp loxo moo waral mu dem ba ay xeex am ci bu ci ay xeex amee dañoo gis ne euh, ñoom ñi nga xam ne ñoom ñoo àndoon ak ministre maire Gallo Ba xaw ma ay nervi lañ xaw ma luñ doon ndax man mosuma leen gis ci commune bi taman ci commune bi laa dëkk te xam naa ñu fi dëkk ñëpp ñuy mais euh, ñu ñu ñu ñu génne ay pompe à gaz pompe dóor ci kaw xale yi nga xam ne ñoo jiitu woon ci cortège euh, Diomaye président bi biñ ko dóoree tamit xale yi daal di daal daal di daal di riposté ñu xeex ak ñoom jël seeni oto foncé ko ci kaw mbooloo mi jël seeni oto foncé ko ci kaw mbooloo ba gaañ ci ay xale nga xam ne am na ci benn xale boo xam ne sax oto dafa jaar ci tànk yi ba man mi man mii maa ko yóbbu hôpital ak euh, coordonnateur départemental Ahmed Lo ñoo ko yóbbu hôpital bii ci bëri janat trois heures du matin ña nga fa woon ba jëlaat ko yóbbu ko këram mu am ay blessures yu métte métte métte yoo xam ne am na ci te li ci gën garaaw li ci gën a garaaw nga xam ne ay ay arme à feu arme à feu maanaam arme à feu mooy fital yooyu nga xam ne mën naa faat bakkan dañ ko faa dañ ko faa gis ñu dóor ko fa ñu dóor ko fa ci lu baree baree baree bari ñu dóor ko fa ci loolu tamit ñu tëjal ñu ay oto yu baree bari tëjal nañ ñu ay oto yu baree baree bari ndax yaakaar naa war na war na war na jege dix oto ak yu mel noonu suñu militants yi tamit ñi ci blessé bari na trop ndax am nañ ay am nañ ay am nañ di di dizaine de de blessures am nañ ko ci ci li nga xamante ne si amoon na démb muy lu ñaaw a ñaaw loo xam ne nag euh, dafa doon loo xam ne coalition Diomaye président au niveau département de Mbacké ñoom loolu euh, dañ leen a provoqué moo tax loolu daal ci am mais bu fekkoon ne li waroon am am na li waroon am am na ci rek kon bu boobaa mbir yi mën naa bañ demee noonu mu nekk loo xam ne nag ñu ngi koy ñaawlu bu baax a baax a baax a baax ndax bu fekkente ne yow da ngaa nekk euh, ministre nekk maire ci ab commune te yow ba ngay jël commune bi nga diggee woon daan na yow boo dikkee da ngay def six mois sànce yi daal di tàmbali mais bu nga defee bu nga def un an ñu gis ay nervi ci biir dëkk bi dañu gis ne kon la ñu digoon ak la nga def maanaam dara méngoo dara méngoo mu doon loo xam ne ñu ngi koy ñaawlu bu baax a baax a baax a baax a it ñoo ngi jël opinion nationale bi ak international bi yëpp témoin di leen wax ne leen li fi xew ni démb waa Benno Bokk Yaakaar ànd ko ak le ministre maire galo Ba ñoom ñoo ñu attaqué gaañ suñu ay xale toj suñu ay oto génne ay arme ko ci kaw xale yi jël seen 4 x yi foncé ko ci biir mbooloo mi nga xam ne maar day taali xëy na suñ borom mooy def sutura waaye mënoon nañoo am ay blessures yu garaaw garaaw yoo xamante ne si mënoon nañoo dem sax bay wax ne bakkan na ci ak yu mel noonu mu nekk loo xam ne duñ ko bàyyi noonu mu sedd ndax képp koo xam ne am nga ci blessure am nga sa certificat médical dañu yóbbu mbiri ci yoon ñu topp ñu ko def ndax euh, am na ci ñoo xam ne identifié nañ leen ba xam nañ seeni tur xam nañ seeni sant xam nañ fu ñu dëkk bu soobee yàlla bu fekkente ne yoon def na liggéeyam ñoom ñëpp dañ leen teg loxo daan yi ci war teg leen ndax impunité dafa war a jeex ci réew mi impunité impunité lu ne lu neex waay def dafa war a jeex ci réew mi kon loolu laa ne woon danaa ko ci wax andi ci ay leeral yoo xam ne euh, dañu koy gàttal bu ko defee ñu bàyyi noonu ñeneen ñi nga xam ne war nañ jël ay ay ay kàddu ci biir conférence bi ñu ñëw andi leeral yi xam ne moom mooy li ci gën a am solo ñu ngi leen sant bu baax di leen. muy li nga xamante ni maam am na ci commune Mbacké démb ndax dafa am loo xamante ne bii su amee ba jàll rek. te jaamu njëkk ci mujj si maanaam dañu dañoo war a jaajëfal ñi nga xamante ne bi maam ñooy waa coalition Diomaye président ndax département Mbacké bii ñu nekk képp ku fi kar seen cortège attaqué ko te jàmm fekk rek bañ naan ñoom ñoom ay blessé xam ne seen bëgg jàmm moo ko ndax mën na maa jël mën na maa jël témoin kenn ji taskatu xibaar yi kenn ci taskatu xibaar yi nga xam ne moo toppoon suñu ginnaaw démb muy reporteru info 7 bi ngi woon ci cortège bi li nekkoon ci coté bi ah, li nekkoon ci cortège ci ay oto ak ay nit ak ñoom ñun dajaloon ci fekkoon dañoo def ni ñoom maanaam ñun dañu danañ gaañ ci ñoom lu baree baree bare mais ñun duñ ay nervi duñu ay mbaam am na yoo xam ne duñ ko def daa am loo xamante ne bii benn jeune wuru koo nangu am na loo xam ne kenn wuru koo nangu. nit warul nangu ñu jël la andi la ci bërëb ne la dalal ci kaw nit ngay dal ci kaw ay nit te ki lay dalloo ci seen kaw moom mu ngi sàcc xaalisu réew mi tëdd ci di ko lekk te yow maam du la jox du jox jabu te boo gaañoo kenn du la faj démb bi ma demee hôpital démb bi bi ay blessé amee ba ma dem hôpital yàlla dogal man dem na nga xam ne ñoo gaañoon ci guddi mais bi ma demee fekk naa fa responsable Pastef yëpp ñuy xool ci ñu blessé mais yàlla dogal na ma am na ay benn benn ci ñoom ñoo xam ne ñoom ci seen bopp ñoo leen blessé ci seen ay oto yu ñu yoroon daaw foncé ci seen kaw par bëgg seen ay nit amul kenn ku ma fekk seen ay nit pour ñëw jàppale leen kon ñoom war nañoo xool bu baax a baax a baax ci li ñuy dugg ak li ñuy def bu yooyu jàllee nag ma ñëw ci bu yooyu jàllee nag ma ñëw ci marché bi wax léegi xam naa nee da ko bi muy gërëm mouvement yi nga xam ne ñoo doon jàpp ci affaire bi nee daa fàtte waa mu dab ñu nekk ay jàmbaar lool ci ak magi Pastef ndax ñoom dañu ne woon yéen waa Zibes fu ngeen teg seen tànk ci campagne ñu teg ko bu ci desaat ma ñëw ci euh, ma ñëw ci lenn muy jur élection yi mayoo fépp vous en nekk ci département Mbacké ak Sénégal yëpp maanaam ñu xam ne ndam li ñu jëm suñu ndam la victoire bii suñu victoire la ñi doon indi xeex démb ak di ñu wóor na leen ne maanaam mënuñoo gagné département bi comme yéen yéen a koy gagné nag maanam bu leen indi benn violence ci bureau yi sécurité bureau yi yéen seen yoon nekku ci yéen le jeunes police moo ko yor ak gendarmerie yoonu kenn nekku ci nañ leen ko bàyyi ñoom ñu gérer ko ku xëy voté demal ñibbi sa kër ndax ñun maanaam donte ay xale lañ waaye tamit ay kilifa lañ ay responsabilité yu mag ñoo gàdde suñ ñoo gàlle suñ yi kon nag lépp loo xamante ni maam day yàq élection yi wala lu ko nuru maanaam bum mu jóge ñun buñ ko buñ ko jege buñ ko laal li gën a di gën a tax ñu woote point de presse bi mooy maanaam ñu gën a woo nit ñu dal maam ñu dal bu ñu xeex bu ñu xuloo borom càq du xeex ak baat na te département bi wóor na leen ne maam yéen koy gañe maam euh, compté guñu waaye wóor na leen ne maam yéen a koy gañe kon maanaam bu leen xeex bu leen xuloo bu leen indi benn histoire ndax tey jii nii maanaam su fekkee dangaa dem ci benn bureau bureau de vote fa am fa am fa am fa lu ma dix mille voix nga xeex fa bañ annulé bureau ba maam yow da ngay perte bureau boobu su fekkente de bi maam da ngaa dem ci bureau am fa temps boo fa coowee ba perte ba da ngay perte bureau boobu encore une fois kon daal ñu ngi leen di woo ñëpp ci dal di woo askan wi bu suba ñu génn wote ji ci jàmm dellusiwaat ci daal.